AVC campagne la bu méngoog loolu campagne octobre daanaka niñ koy defee benn la fi ñu gën a jublu mooy yee askan wi si lii di feebaru AVC ak it naka la ñuy def ba maytu ko bii la bëccëgu dépistage association sénégalaise de soutien aux patients et familles des victimes organisé fii ci hôpital Fann sàkkuteef bi du lenn lu dul fexe rek ba xeex bi la feebar di wéy di defi njombe fii ci réewu Sénégal. Euh, fi ñu toll nii tey jii nii dañuy wax ci li nga xamante ne bu ko nit ki gisee war na mën a daw moo di tey jii nii signes yooyu noonu muy euh, bu fekkee nit ki day wax ba si yàgg gémmiñam gi mooy wala mu bëgg a yëkkati loxo loxo bi mënul nangu wala muy dox tu ba ci yàgg tànk bi bañ loolu yëpp ay signes yoo xamante ne ne tey dañ ciy waxtaan pour que nit ki nga xamante ne am na ko wala ki nekk moom bu ko gisee ci moom rek mu daw si ñëw indi ko ku ñuy wax hôpital Fann service de neurologie bile kuréel di sàkku ñu wàññi bu baax a baax njëgu paj mi ndax cher na lool ba jéggi dayoo. scanner bi ak IRM bi li nga xamante ne mooy mën a tax yow nga wax ndax kii bi AVC ischémique la am wala AVC hémorragique AVC hémorragique mooy bi nga xamante ne sidit bi dafa dagg loolu pour nga seetu ko rek docteur mën a def liggéeyam il faut que ko def euh, scanner scanner bi mu ngi jar mille 000 wala mu def IRM IRM bi 120 à 150 000. ay doomi Sénégal yu bëri profitoo nañ si bile bëccëg ñëw saytu seen wérgu yaram. waaw ah, tey nag sama rakk moo feebaroon ma ñëw indi ko fii mu ñëw faju si moo tax ma ñëw jënd carte pour jéem a xool parce que jamono bi fi mu toll nii ñëpp presque mun naa ne ñëpp a feebar. avant tout war nañ di xool suñu santé ba xam fan la toll suñu tension war nañ ko di vérifier xool suñu suukar ba xam fu mu toll. bile campagne avril AVC. war a ba fanweeri fan si weeru avril gi ñu nekk nii caravane bi dina wër ay gox yu bëri yu ne si biir réew mi sàkkuteef bi du lenn lu dul fexe rek ba asken wi di xam feebaru AVC naka la leen di dikkee ngir ñu mën say jog si bu teel ndax fagaru moo gën fajoo